notre force la qualité mooy bàkkam loolu waral Touba Quincaillerie Générale TQG du noppi ngir améliorer ay service am gamme bu bees ci wàllu serrure poignée charnière canon laa leen indil yéen ñi dëkkee ci peggu géej wala ngeen am problème mu serrure bu ruy solution baa ngi TQG indil na la ay poignées yu haut de gamme ngir yokk seen sécurité am nañ ay serrure yu baax ay poignées en inox maanaam yu couleur bi dul changer mukk poignée TQG am nañu ko en laiton chamat alu diamant noir chromé anodinox canaux yi tamit TQG indi na leen ci yu am kaaraange serrure détachable céréale ak radial TQG ñi ngi ci 65 rue Galandou Diouf ak 84 rue Galandou Diouf cité d'Amel Mbour ak Touba suñu marque am na fépp ci Sénégal téléphone 33 822 05 34 wala ci 33 879 28 28. kii gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yal nañu yàlla boole jëkkal dellu di sant yàlla mi nga xam ne moom rekk la moom rekk moo fi jëkk moom rekk moo fi des Eh, amul kenn ku koy defal dara ba defee ne mënoo fee ñàkk amul kenn it ku muy séentu naan bu ñëwee moo fi nekk ndax mu mënal ko dara lu fi yëngu rek moo ko yëngal lu ngeen gisit bu xewee moo ko xewal yàlla moomu nag moo bind àdduna boole ko ak wutal ko fu muy yem waaye diggante bi fi nit di def li muy gàtt gàtt boole la ko fekk ay nattu ak na yoo xam ne su ca taxawut taxawaay ba mu ca war a taxaw rek bis bu ñu ko dugalee ci bàmmeelam yàlla na ci yàlla musal coono ba mën naa yokk waaye su dee jullit nag boo xam ne xam ne taxoon suñu borom indi ko fi lu këram yaatu yaatu woon yaatu bi muy dund suñ ko dugalee ci bàmmeel day gën a yaatu gën a ëpp noflaay yàlla na ko yàlla defal fan lii nag suñu boroom wàcce ci réew mi euh, ay yëf yëfaan yoo xam ne moom rek moo ko sañ ndax moom lii dox diggante nit ñi ak seeni moroom ba ñuy séddante ay cër doxul digganteem ak kenn ndax li tax ngay sédd nit cër ba bu la defee lu mu la warta def nga gëmmu ca benn nga siq kook moom wala nga siq ko kum ko siqal moom nga siddi ci kooku cër yàlla nag lam yalid walam yulad yëg-yëg bii ñuy yëg ci suñuy diggante amut lenn lu ko booleek nit ba mu di ko ci yëg kon fàttalikuwaat xew-xew yi su amee day warugar woo xam ne wenn warugar jiituwu ko ci loolu nag ñu jëkkante ci jaale ci ay sénégalais ak i africain yu bari yu faatu bu yàggutoo ci bëj saalumu Sénégal yàlla leen yàlla yërëm te yàlla indi fa jàmm xew-xew yu ni mel nag day yees rek ñu jul dundi ko jàll nit ñi dund ko bu weesoo ñaari fan ñetti fan ñu delluwaat ci yitte yi yitte yi ana lu doon njaboot gi kër yi weesu kër kër ji lépp weesuwul kër gi ak njaboot gi kese ak fu njaboot mën a jaboote waaye bàyyiwuñ xel ne ku fi mën a bàyyi ko ak nu mën a toll eh, da ngay dégg ñu ne jégg jébbal nañ ko boroomam muy lu wér loolu moom li ñuy wax mu wér looloo si gën a wér jëbbal nañ ko boroomam ndax koo xam ne buy ñëw dañuy xëy xëy rek ni diw am na gan bu fi jógee noonu lay dem moom rek moo ko sañ te du tax jant bi tardé benn minute du yeex a fenk dara ca lam doon fenk du tax mu yeex a so du tax mu gën a naaj du tax mu gën a sedd dara yitteelu ko ci coobareem ak kàttanam kese kon yàlla rek mooy dund te du fi jóge mooy kenn koo xam ne dara du ko raw mooy kenn koo xam ne it moo fi des sa dara du ko fi jële mooy koo xam ne it lam waxoon bis bu ñu gis ko eh, yasaluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n kullu shay'in haalikun illa wajha eh, bu ñuy déglu ci yenn yenn rajo am na ayab alquran bu ñuy tëje boo xam ne bis bu set yàlla fàttali ko jaam ñi waaye dañ koy fàtte mooy kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dul kon bala ñoo delluwaat ci yitte yi ñu fàttaliku ne euh, léeg-léeg nit bàyyi doon kuñ yaakaaroon lool ci lu bari yittey àdduna wala yitte ju jëm ci yàlla kese te ñépp seeni ajo di faju ba benn bis ñu xëy rek kañ la ko def nu mu amee képp lañuy laaj waaye duñ laaj ku ko def ka ko fu jële mooy yàlla rek lam waxoon ci alxuraan di gën di wér saa su nekk innama tuwaaduuna la aati lum mu digee lu mu yàgg-yàgg des na ko teg bët lu yàgg-yàgg des na ko teg bët waaye nit ñi liñ ci jàngate dara waaye war si nay jàngat kenn ku nekk bu ñu ko nee ku mag bàyyi fi mu ne boo wëtiwut maa cay topp de xool lam jot a def ak lim lim lim defagul lim jot a def lu ca mat a def mu jëmale ko kanam lu ci mëtt a def dana ko xam moo yàlla mu fexe ba ni ko yàlla suturaalee ba kenn xamu ko mu tegg ca tànkam ca saasa ndax kat am na ñuy lay naan ku fi bàyyi ko dañoo war a wax ci moom lu baax daal lay indil aaya quulu linnaasi xusna na fekk kay wax xam la muy wax tamit wax la muy wax di dëgg yàlla na ko yàlla defal moo tax léeg lu mel na noonu su xewee war nañuy laaj kenn ku nekk laaj boppam ndax fii fu ñuy saxla wala déet tontu li mooy kenn du fi sax laaj bàmmeel bi nga xam ne ñu bare gis nañ ko gis nañu kas ba mu xóot ñu dugal ca nit maasa la dem seen yoon ndax fii man dinaa ci bokk wala ma ci bokk laaj bi mooy ax ah kañ euh, dellu laajal suñu bopp kaay leen ànd ci jullee gi ñi naan fekke naa ko ñi naan fekke ko ñi naan ñi ko sañ naan moo ko jiw moo ko taxawee moo ko jiw lañ bëgg a wax rek euh, ñooñu ñuy taxawee ku daan joxe ndigal démb ak barki démb da bokk dañ koy mëgg tëral rek ci kanam taxaw tiim ko du mën a yëngal benn ca bu ko weñ dalee sax du ko mën a dàq bu ko weñ dalee sax du ko mën a dàq loolu bis bu set nit gis ko. waaye dañ koy jël lu jël dugal ko ci oto boo xam ne fañ koy teg kenn nanguwu caa toog dañuy toog tiim ko kay mu tëdd ci suuf ñu yóbbu bu ñu yóbbee waajal ko mën nañ koo fonk lool waaye mujj ga du mujj lu dul rek tibb suuf sotti ci ba mu fees rek ba mu ne jàng ñu dem seen yoon loolu war na cee waaru danañ ko def ko daan joxe ndigal di ko def ci koo xam ne dañ ko daan jox ndigal buñ noppee nag kenn ku nekk war naa laaj boppam nangami fukki nit wala mi junni yi nga xam ne da nga leen gis ñu ne la siim ana ñu fi ne ana fuñ jëm ci kaw lañ jëm wala ci suuf lañ jëm ñun ñi kan moo cay toppaat loolu ku ne war na ko laaj boppam waaye waris naa laaj fi mu toll nii ci lu nekk ci lan la nekk. ci lan euh, ana su tontoo tontu la mu war a tontu nuñ koy def ak su tontee lu koy defal ak su tontoo la mu war tontu lu ñu koy def ak fu muy mujj daal loolu ku ne war na koy laaj buñ ñu dencee ba noppi rawatina nag yenn xew-xew yu ràññiku yi nga xam ne day tax nit jóge fu nekk di dem di ko fekke ji moo tax yàlla nee na woon ci alquran mooy aaya bi ma jàng léegi ni ngi suutu anaam ñii ngeen di gunge nit par benn euh, noonu ngeen fi ñëwee woon waaye nag kenn kuñ ci gunge ba noppi ni fi ñëwoon mooy terte ñu ñëw par benn waaye di ñu gunge ñu dem par benn waaye nag kuñ gunge moom ba noppi lu mu amoon ñàkk na ko ci yeneen loxo lay dugg ñum xamoon ñe naa na koy wéyal di leen jokk waaye ñàkk nañ ko moom duñ ko am euh, lu ci bàyyi lu mu bari bari it ci yeneen loxo lay dugaat rek ñami dugg ci ay loxoom def ci lu leen sopp lu mu ci bëggoon a def ak lu mu ci bëggoon def lépp des na ko ca moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di muy leeral euh, aaya boobu aaya ba sax wéy na ba ñi nga xam ne ñoom la nit ñi gënoon a jaxasool ci xaritoo wala ñu bokkoon fu ñuy liggéeyee wala ñu daan bokk añ ak reer ndax wóolonte wala di bokk benn néeg bu ñuy tëdd ndax wóolonte lu waaye sol sa moroom sol ko ngeen niroole ko bu ñu demee par benn kooko danañ tocc du xam waaye dina ànd guddi bëccëg ci lu mu nekk ak fu ak laaj yu bari yooyu ma laaj rek loolu ayab alquran la seen diggante dog na moom Euh, yonent bi nag bi mu koy leeral daf ne kon ku fi bàyyi ko ak ku mën a doon ñett dana ko doon buñ ko yóbbu ci armeel ya di ko denci alalam du ko wuute bu fekkee jëfandikoo ne sharia li ñuy war a njëkk a génne ci alalam mooy li ko waajale alalam dana ca topp waa këram ak njabootam ak i xaritam ñépp àndandoo léeg-léeg sax ñu ko xamutoon te doon ko dégg ànd ja ak jëfam muy ñett waaye suñu dencee ba noppi ba ñaan ba noppi ñaar ñi dañuy yewi ko ñoom dem bàyyi ko fa muy alalam ndax bu fekkee ci otom lañ ko duwaloon oto ba moom duñ ko sulaa dañ koy yóbbaale kër gi euh, teg loxo ca alal jafa desoon jëpp waa këram duñ ci kenn du ne nañ ma sulaale ndax ni ma demee woon ak moom dañuy wàññi ko nit nit ñi dem waaye ku mu fay defal jëfam rek yàlla na jëf ju baax moo tax waykat bi wax ko ne saa suñ xëyee suñ xol yi gën di wow kenn ci ñun la dee mënta waar moo ne day bis bu set ñu waajal denc koo xam ne ab xarit la woon démb walla ab soppe walla ab noon denc ko ñenn ñuy jooy ñenn ñi ma wutale na cell lu waajtaay wa jekk-jekk duñ mujj lu may tibb suuf ku ne di ci barkeelu mel ni seen noonu démb la woon du ne ma du ne yéene nga may gaañ du ne suuf si tàng ne du ne sedd la yàlla noonu yàlla musal ci dee ak sukkuraatam su metti mënuñu cee musal waaye buy ñëw yàlla nañu fekk rek li ñuy ñaan mooy yàlla nañu fekk ci lu baax yàlla nañu yàlla musal ci bàmmeel ak ku lënd kon buñ cay dem yàlla nañu yóbbaale aw la yow laa ñaqar yi topp ci ginnaaw dee yépp yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa ay nit romb nañu ko di daw ba mu yàgg mel ni ñi doon dem dañoo jeex mu génn xool ndax këram ak armeel yi soree wutoon mu ne ñee lu ñuy def fe nëg ni ñu ne ko am néew dafa nekk solut mbubb dugg ci duggaatu ci biir sol mbubb solaatul ay daal dañ ko dabake daal dab ko mbubb mu fax wutali leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Muhammad ba mu demee ak seydina Ousmane ak seydina Abu Bakar ñoom ñépp toog waaye seydina Ousmane radiyallahu anhu moom kero daa jooy ba fi sa góor tooy xib ndax rongooñ ju jóge ci bët gëtam ya jaar ci sikkimam bi wàcc yeneent bi ne waaw bis bii lu ngeen ko waajale ku ne di wax lu way wax mu ne mat na ko de ndax fii ñuy def waa ji ci lay mooy saalu atantu àllaaxira yowmal qiyaama moom la sëñ bu mag bi di way naan idil qiyaamatu qiyaamataan sufra mamaatu kulli ma insaani ba baax al kubra wa tilka nafku fi suur la yaati ma bi yow fasu bu ñu ko fi dugalee ba dem ci lay tàmbalee xam mbiram nu muy demee su melee na mu war a mel xéewal tàmbalee ñëw addis bu gudd la boo xam ne wax na ci kuy faatu nu muy nu muy mel bu ñu koy jël si nu muy demee bu neree taxe ak bu narta taxe waaye su fekkee daal tàmbali naa gis yenn xéew yi na ko wóor ne yomal xiyaama la jëm am naw lay ba noppi waaye su tàmbalee am jafe-jafe nag kanam la jëm itam ndax dund foofu kanam la jëm adduna mooy dund ba yàgg waa nekk ci jafe-jafe ba yàgg mu ne ci bànneex waaye foofa loo fa waaye nekk day yokku kon boobu kilifa gi nga xam ne moo fi jóge yàlla na ko yàlla tasale gërmandeem ku dal la woon léegi la waxtaan fii ci biir ñépp juboo nañ ci ne bu fekkee làmmiñ dana yóbbu nit ci safaan yàlla mën na ko musal ta wax ci làmmiñam lu loo xam ne kenn mënu koo nett su ca lu mënta wax mu ne ci yàlla léegi nag ñi des mooy ñi fi des euh, lu ci nekk bu jógee ci ay loxo day dugg ci yeneen i loxo suñu boroom mi ngi wax ne ci alxuraanul karim wa kam min qaryatin ahlaknaha fa jaaha basuna bayatan aw hum qailuun fa ma kaana daawahum id jaahum basuna illa an qaalu inna kunna zalimin léeg-léeg nga gis réew moo xam ne yàlla daf fay wàcc ab nattoom benn muy guddi wala bëccëg waaye suñ seetluwaatee seen bopp ñoom waa réew ma duñ wax lu dul dëgg dëgg nag ñun ñoo tooñ yàlla kon loolu li da ko war di wax bis bu set waaye nag ginnaaw lu ne daa jóge ci ay loxo dem ci loxo yi loxo yi muy dugg ñoo gën a am jafe-jafe ñoom loxo yi mu génne ndax loxo yi muy dugg dégg naa ko naan maa ngi ndokkeel diw xamut li muy wax lu mu yi loo xam ne bala moo dugg sa loxo dañuy yóbbu nit ba noppi sang ko sang ko jullee ko denc ko ñëw mu dugg say loxo kenn warulaa ndokkeel wóor na ma ne kenn yàkkamti ko dañ laa war di ñaanal ba yàlla wan la li nga yàlla lu mu doon ndax aayaat yooyu ma jëkk a wax ba ca topp lu diis la kay jiite na muy jiite mën naa indil waa réew ma jafe-jafe ya ñuy nekk te su ëllëg yàlla da koy laaj fa la nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalan wala nasalanna al mursalin bu ëllëgee kenn ku ci nekk lam jiite woon dana danañu ko laaj nam ko jiite woon mu wax ba àggal ñu ne ñam jiite woon yéen nu mu leen jiite woon fa la naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna fa la naqussanna jiital nag laam tëje ko noonu guñ sàdda yii yépp wala nasalanna ak fële ne xussan ñoom ñëpp laam lañ jëkk ñi dégg naar xam nañ lu muy tekki xam nuun guñ sadda lu muy tekki fala naqussanna alayhim bi ilmin su fekkee ña jiite woon wax nañ ba àggal ñañ jiite woon wax yàlla ne lépp fekk naa ko maa leen di wax nam demee woon ilm am na ñu ko tekkee kenn ku nekk téeréb jëfam nañ génn ñu xool kenn ku nekk na jàng bi dégg wa ma kunna ghaa'ibin maa nga fa woon te fii moom wal waznu yawma idin al xaq al waznu mooy atte ba bu ëllëgee maanu gu ma sëkk daf cay feeñ yawma idin al xaq maanu gu mat sëkk kon koo xam ne dañu koy yóbbu ba dikk nga door a jot wala su waaye dañ laa war a ñaanal ñaan nga nag wërta génn yaar yàlla na nga xam liñ la yan lu doon yàlla na la ko yàlla waaye falal te yàlla na la yàlla xiirit ci jiitu doon tegale bu jub tegale bu tegaloo mu jub rek ba jiitu moo jub xikma baaliga la waaye nag bokk yi euh, li ci gën a tiis mooy nit ki su gisoon li koy fatt du mës a fattu ab jay day am boo gisee suñu mag bi muy bind téere bi ñuy wax Matlabul Fawzayni firndeel la ci ne ab jay luy am la min baadi maa kaada maa kaada imtidaaxu nnaasi yudxiluni fi sharaki alxannaasi wa lil amdaaxi wal itraai azhadu fi taalifi wal iqraa tuuti kon rek nit ñi jaay maa jaay jaay ba ne ma soo yuqamtikoo la nga lal asamaan si te yuqamtiku taxuta njoole ku yuqamtiku it boo bàyyee dellu fa nga nekkoon jaayante lu diis la ba ñuy jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay anam yu wut lañ jaayante ak moom ñenn ñi ne loo wax ma def ko ñu gën a matale ñooñu seen jaan wàcc na yonent bi moo fi des te yonent bi du ko desee mu réer ñëw leen ma dem ñëw leen ñu dem lay wax day gis ñu topp ja ñenn ñi ne ko loo digle su fekkee yàllaa ko digle ma ànd ak yow ñooñu it fu wér lañ teg seen biir ndax li yonent bi yor xam nañ lu mu doon toppe wuñ ko doomi diw rasulullahi lañ ko toppe yaa ayuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia rasulullah allazi lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit ñenn ñi ne ko lu ma ca man def ko ñooñu fu wér lañ teg lañuy def ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha kon yan bi du diis la yal na ko yàlla woyefal ci kiñ ko yan te jaayante li ko tax a diis yàlla nee na woon ci alquran inna alladina yubaayicuunaka innama yubaayicuuna allaha yadullahi fawqa aydihim ku jaayanteeg yow te fekk bi ñuy jaayanteel da ngay tàllal loxo ñu teg ci ku teg sa loxo ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loxo yàlla la ko teg mu nekkal fi yàlla waaye yi jëkk ne ko loo wax ñu def ko fu wér lañ ko teg waaye ñi nga xam dañu ko ne li fekk yàlla nga koy wax ñooñu itam kenn demul ñu des moom la sëñ Cerno Birahim moom laa jeexale defee woon benn fatwa dafa am julli gu julli def ca ab jamuj yonent bay gën ñëpp te li tax ñu indi si ku juum ni nga koy defar yonent bi ko njëkk a def sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko subhanallah subhanallah ba mu sëlmalee mun ne ana ko ko wax ñu defee ne dañoo wax musiba ñu ne cell mu ne ñu ne ko diw mi moo ko def mu jóg dugg ci biir waaj yére waajaay mbubb ak la muy àndal lépp ak jullikaay ak la muy àndal lépp xëpp ko ko ak alal ne ko waaw góor noonu la de ki ngay topp da ngay xam li nga koy toppee lu mu def nga xam te xam li muy def lu mu doon ba bu koy yàq nga ne ko yaa koy yàq moo gën nga ne pat ba julli gi julli imam ci yàqu julli yëpp maa si yàqu te nga doon ca responsable masuliya te nga doon ca dara dama doon ko wax te ne ci yàlla dal ko ne yow digal naa la bu toppati ci ginnaaw ku dul juum ku juum yàlla rek la subhanahu wa taala waaye yonent bi mu yónnee woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tàyyi ñam jiite woon te moo jiite woon ñëpp amul ku mas a bañ ne yaay jiite wax na ba tàyyi ñu ne lool loolu foo ko teg bu dee xalaat kese la dañ koy indi fii ñu bokk su fekkee wax yu la nag ndax yow la yàlla waxoon ne qul innama ana basharun mislukum yuuxa mislukum waaye nag yuuxa ilay bu dul wax yu nag tegal ci suuf ñu waxtaanee ko fii mu ne wax dëgg yàlla du wax ñu ne ko waxal kon lu mu doon mu ne xalaat la ñuy wax te xalaat kenn xamul aaya quraan ni tollu ci yoo xam ne aaya bi day ñëw ànd ak la diw xalaatoon moo tax jiite ak jur ak jiite ay nit dadul benn ak jur kañ la leen sa sàrdi bi di jiital di jiite mooy bu jógee ca tool yi rek bu jógee ca fañ doon fare di jox fi jur gépp xam nañ kër ga mu jiitu ñu topp ci moom mu mel ne dañ ko topp fekk toppuñu ko dañoo yàkkante ñibbi kàpp waaye suñuy dem ca àll ba di fari moo leen di jiite yor aw yat ñuy jàdd di palamtu kon jiite lu diis la sëñ bii fi nekk nag wax na ba tàyyi ne moom bëgguta doon kilifa daa bëgg ñu koy yilif ba faw waaye yàlla ko ko teg nag nañ ko ñaanal euh, bu ko nërtoon a àttaan yàlla du ko ko yaan te xel dal na ci moom bu baax na xel dale woon ci sëñ ba mu fa wuutu ak ba mu fa wuutu woon ak yam fa wuutu woon yàlla na ko yàlla téeñal te it may nu sago suñ topp ci ginnaawam ndax moom it mus sa teg tànkam foo xam ne dañ naan lu mu fa wuti mus tàllal lu ñu tax mu tàllal ko mus sa wax loo xam ne dañ naan lu tax mu wax ko te mënu ko nettaliwaat moom Euh, suñ bi su jógee it yàlla na ko yàlla tegal loxo ci njabootam bañ àggaleel ko ay yéeneem ñëpp xam nañu ne lu mu jot a def ku néew ci juróom-ñeenti fukki at yu teg yi mu fi am lem yéene ko ëpp fuuf ndax dem na ba kàttanu yaramam mayeetu ko rek waaye yóbbaale ni yéene ci bari yàlla na ko ak njabootam àggaleel te suñ bii fi nekk ak ñi mu fi nekkal ak njaboot bi ñépp itam te bokk yëpp gis nañ liñ ci def yal na leen yàlla fay yal na lu yàlla dimbali ba ñu bañ koo fàtte mi ngi wax ci alquran wala takunu kalladina nasu llaha fa ansaahum anfusahum bu leen yàlla bu leen yàlla boole si ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla yàlla fàtte fàtte lu leen yàlla du fàtte fàtte fàtte lu leen mooy lafa suñu borom di jëfandikoo mooy magum lëndam ku ko dajatit mu daj boppam lu mel ni nañ ci jàngat dellu xam ne yàlla rek moo fi des yàlla rek moo fi nekkoon démb suñuy maam ak seeni maamaat ak seen maam ñépp yàlla leen fa jële moo fi jële bàyyi ya jële fa mag ya du si bàyyi kenn te kenn du ko laaj lu tax nga def ko te it bis dina ñëw mu dajalewaat ñépp loolu dara si moom ku dem ci àll bi gis ne mel nii doo gis ñax mu tooy bu tawaatee ba ci suba sa danañu xam ne yàlla mën na lu mu wax dana ko def ilayhi nushur kulu min rizqihi wa ilayhi nushur yàlla nañu yàlla dimbale te dafa ñu dëgg topp te mosuñu seytaane ci fakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin notre force la qualité mooy bàkkam loolu waral Touba Quincaillerie Générale TQG du noppi ngir améliorer ay service am gam bu bees ci wàllu serrure poignée charnière canon laa leen indil yéen ñi dëkkee ci peggu géej wala ngeen am problème mu serrure buy ruy solution baa ngi TQG indil na la ay poignées yu haut de gamme ngir yokk seen sécurité am nañ ay serrure yu baax ay poignées en inox maanaam yu couleur bi dul changer mukk poignée TQG am nañu ko en laiton chamat alu diamant noir chromé anodinox canaux yi tamit. TQG indi na leen ci yu am kaaraange serrure détachable sériale ak radiale TQG ñu ngi ci ru rue Galandou Diouf ak 84 rue Galandou Diouf cité Damel Mbour ak Touba suñu marque am na fépp ci Sénégal téléphone 33 822 05 34 wala ci 33 879